jërëjëf mbokku internetu Sénégal Buzz 221 mbokk di amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne tey nag ma ñëwati seet si sama yaay bi nga xamante ne nag saa su ne rek actualité da ci sawar di ci waxtaan ak sénégalais rawatina fii nga xamante ni moo di Sénégal Buzz 221 di suñu maman Selbé Ndom mu ñëw fekk ko ah yaay tay moom li nga pelli lii lii koy defanteel ah yaay macha allah nuyoo nuyoo ak internet yi. sama bopp laay defanteel. waaw waa di sant yàlla bu baax julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm. di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. Mm-hmm. di gën a yeesal sama njébbal ci Serigne Touba naan ko aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar. Mm. di nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru di koy ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ah nit ku ci nekk nag am nga xarit am nga wëllëre. Mm-hmm. muy ki nga bëggal sa bopp ki la yàlla booleek moom yónni la ci moom muy Seydi Mouhamed Moustapha si di ko ñaanal mu gudd fan ànd ak wér. amiin sekk danaan am na njaagoy Waly waaye Selbé tamit am na ay njaago boppam di nuyu Paul Gomis di ko ziyaare. moom mi nga xam ne ku sonnoon la ci man mhm. bëgg may def lu baax mhm. bëggul ma def dara lu bon maa ngi koy nuyu fépp fu mën a nekk ci àddina bi rek maa ngi lay ziar di jox sa wàccuwaay Paul mhm. Gomis di la ñaanal gudd fan ak wér da dajee Seydina Mohamed yàlla may la lépp loo bëgg ba nga teral ñëpp barke Seydina Mohamed waaw macha allah mi kàddu nuyoo yu am solo yoo xamante ne nag suñu maman nuyoo na ko mais yaay fan yi ku lay sponsorisé li ngay sañ sa tamit ba jàmm <laughs> Eh, xanaa dugg HLM rek. waaw am nu ma def ndax ginnaaw sunu borom def na Selbé dafa siiw. waaw yàlla moo ko def te damay génn. te ñu ma bëgg bëri nañ lool dama naan kenn bañu ma ñëpp ma bëgg. wallaay dëgg la ah. li nga koy tëjee ci armoire bi nga génn ko rek. waaw waaw tasaare ko rek ci kàttanu yàlla. waaw maanaam di solu rek. def hmm. yëfi kuy dund rek. waaw waaw di sant waale bu baax ndax moo ma dundalaat. macha allah wallaay mi kàddu yi am solo yoo xamante ne xëy na euh, wax na ko rek waaye tey yaay euh, actualité dañu la seet si tey ngir ñu waxtaanee benn actualité boo xamante ne boobu ba léegi ñu ngi dégg euh, coow li daw ci internet bi ci diggante ki nga xamante ne moo di Bambaly ak xale bu jigéen boobu ñu woowee Tida ci doom ji nga xamante ne mën nañ ni yàlla moo leen ko boole waaye Tida dafa génn def ay révélation ne Bambaly dafa daw li nga xamante ni moo di ay responsabilité jurul li nga xamante ni moo di xale bi génnee na foto wax na li ñu dund ñoom ñëpp confirmé ni moo jur doomam naka nga jàngatee mbir mi ak lan nga ciy wax. waaw di sant yàlla bu baax jullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ah, continuer sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul information bi ma ko déggee rek bëggu moon tëb wax. Mhm. faaw ma ay preuve mhm. ndax bi ci daa waxee kese. génnewul ay preuve hmm. wane doomam hmm. maanaam man a ah, dama doon wax ne Tida lu tax mu toog ba heure bii hmm. mu doon muy doog génne doomam waaye bi ma gisee photo bi xool foto bi xool bëti xale bi mu jox ma bàmbaali ma xool yéeni xale bi mu jox ma bàmbaali ma xool bakkani xale bi mu jox ma bàmbaali bopp xale bi mu jox ma bàmbaali kon sekk mariage may sa biige may sa biige maar ah àdduna amul solo mm-hmm. jamal ndànk nga reconnaître sa doom mm-hmm. parce que man du may waxantu wallahi xale bi nuru na ko du mm-hmm. dama faral tiddaa parce que xaw ma tiddaa bu xam di am ma pend sekk laa xam xam Ousmane Seck xam Kéba Seck xam Thione Seck ak xawma ka naar Ablaye Naar. waaw suñu papa Naar. xam naa ko doon tuddee Naar ñëw na fii sama kër xam naa Ablaye Naar Mapenda gisante na ak moom Ousmane Seck gisante na ak moom Kéba Seck moom gisaguma ko du dëgg kon maanaam mariage may sa biiga may sa biiga maar xam nga dañ na ajub naa nga des ndóom jarga dee ca lambaay xawma terga dem ba ca lamba jiinoo jiin jiin faramaaréer wuyul sa woy wi sekk bu ci boole dara ki wax dama reconnaître sa doom doom ji moom wallaay sekk nag sa doom la hmm. dëgg yàlla mu neex mu naqari ndax usmaan Seck wax na lu rafet toppal li sa papa Ousmane Seck wax adduna bi yëpp du jar ñu lay ŋaab da nekk ci début carrière am foo teg sa bët hmm. kon Bambaali sa yaay Selbé Ndom nee na nga dem reconnaître sa doom bul dégg waxuma sàmba bul dégg waxuma ba ndax jamono ji bàmbaale dafa am fu mu fu mu toll foo xam ne am na ñoo xam ne dañuy jël taal bi di ci xamba ay matt rek muy gën a tàkk kay fay nag mooy kay jël ndox sotti ca ndànk ndax ndox moo mën safara du dëgg waaye boo bàyyee ba safara bi jolli tamit ah du jar dem ci yenn yi demal nga reconnaître ndànk sa doom man duma waxantu billaahi wallahi watallaahi daraja yi Seydina Muhammad hmm. xale bi boppam bii bàmbaali kese hmm? billaahi wallahi watallaahi hmm. daraja yi Seydina Muhammad tey jii bu danoon sama doom ma gis xale bi dama naan sama doom demal nga nangu man sax maa njëkk a dem kon maanaam ah bàmbaali man de loolu laa gis wax dëgg yàlla waaw loolu nga gis. laa gis kaddu yu papa Ousmane wax ah, ci gën a xamalaat ki nga xamante ni aussi moo di Bambaali ne mbir euh, wala li yàlla dafa ne laa taqrabu zina bul laal bul jege boo demee ba laal nag wala nga jege mbir mi bu buñ la nee yow war ngaa mën a jël seen responsabilités nangu li nga xamante ne moom lañ la ji. non Ousmane Seck nit la Ousmane Seck li mu wax ñëpp ko apprécier ndax tey jii bu la yàlla do bu yàlla dogalee gis nga soirée Bambaali bi. Hmm. Euh, Tida bi mu ñëwee. waaw. Bambaly mi ngi woy mais boo xoolee vidéo Bambaly mi ngi xool. mi ngi xool. ci la continent xaw ma kan moo bari doole boo gisee nu mu woy sax nga xam ne kii am na lu nekk. si bopp bi gis naa li bëri walla wan naa la vidéo bi naa ko ci. walla xam nga wan naa la vidéo bi ne la xoolal Bambaly. Mm-hmm. soo xoolee Bambaly dafa mel nii maanaam instant bu ma gisee tii Tida sax nekkut. Mm-hmm. carrément nekkut. daa dafa bëgg bàmbaali jigéen nag ginnaaw yàlla def na jigéen moo jur góor góor dafa war a teral jigéen ci lu te ñu bàyyi lool jigéen bu la bëggee ba yëkkati boppam lu toll ni boppam nga xam ne moo ëpp jamaa moo ëpp or àdduna la moom maanaam moom la la jox maanaam nga wëlbatiku delloo ko njukkal ne ko yaa ma indil doomu aadama yokk xeetu Seydina Mohamed yàlla dogal na maanaam niñ ko amee bànneex la nekkul farata yàlla ak sunna warutoon a toog sax bàmbaali warutoon a toog sax ba yegg si fii waaw ba mu yegg si bañ koy génne ñëpp naan doomu bàmbaale la doomu bàmbaale ku xool xale bi xam ne boppam boobu mooy bàmbaali bëtam yooyu tubaarikàlla bàmbaali la mais aussi ñu bëri jàpp ne tamit ndax tamit euh, famille bi tamit euh, seetaanuñu sàggante amul ba mbir yi toll fii parce que boo amee sa doom bu góor coow loolu yàgg na dugg ci biir kër gi. Mhm. ba mu am tey ñeenti at ñu toog seetaan ba mu génn ci internet bi est-ce que tamit ñooñu négligence amul ci famille bi. tamit waroon na jël seen responsabilité man dama naan xëy na yaayu Tida jéem na ba sonn. Tida jéem na ci zaari jéem na ci bàttin. non ci famille ku góor ki la ñuy wax xaaral rek. Mhm. parce que famille ku jigéen ki ñoo waroon dem famille ci famille ku góor ki bu leen koo ku góor ki mayee. Tida moo waroon wax yaayam na dem ko ñoom bàmbaali duñ ko dàq. ndax ñooñu xam nañ public. tàmm nañu ay doomu aadama di ñëw ci seen biiri kër ñoom ci loolu lañu juddu maanaam ñoom ñoo waroon a dem defi xaw ma na am na xaw ma amul. Mhm. waaw mais yaayu Tida moo waroon def ay pas pour xool ko waaye toog ba xale bi am 4 ans aussi. tey jii bu nuróowuloon bàmbaali man Selmi Lom dama naan. mais est-ce que est-ce que si ay tànk tamit ñu rejeté leen wala parce que. lu que nit du tëb tëb rek toog ci média wax ah. suñu xalaat bu gàtt xam nga man tey xëy na ñoom bu ñu demee ba ba sës. lañ doog a toog ci média xëy na dox nañu. Mhm. ndax xale bi ti ti daanee na bàmbaali wax na ko mooy jur doom ci. Mhm. foofu rek la bàmbaali waroon def waru woon xaar ba mu si fii. xale bi mënoon na ko déclarer ne moo jur doomam te te siiw ci àddina bi. Mhm. siiw bi moom jaru ko woon ndax Bambaali xale la dafa nekk ci carrière am. Mhm. ñu di ko ñaanal. waaw yàlla yóbbu ko ci fi mu. fi mu bëgg ñu sàmm image xale bi nga xamante ne mooy doom ji. wallaahi wallaahi metti na. Mhm. metti na metti na ci ay yaayam xam nga yaay bu demee ba feeñal doom ci écran rek booba sës na. Mhm. ndax fi mu ne ni bëgg na eh, eh, eh, Bambaali reconnaître xale bi ndax mu mën a am ay kayit aussi. soo xoolee tamit ñee ñu ngi seen dëgg. mënuma leen a xas. ndax dañoo yore doom. bëgg aussi ñu mën a wax ne kii kat diw mooy baayam. te ku ko ne jàkk gëm yàlla. gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nga xam ne xale bi faramarin la fa la bokk. di ñaan bàmbaali rek sama doom. ah ci barke laa ilaha illallah teg ci muhammadu rasulullahi maanaam nga dem nangu sa doom. parce que xale bi boo xoolee commentaire yi lépp dëgg la. Mm-hmm. te man xooluma commentaire sax. ba mu ba mu jeex. vidéo bi xale bu jigéen bi solo génne ween yi di dem soirée Bambaali man action laa fa gis. Mm-hmm. action laa fa gis. bu daw seen diggante. waaw waaw action laa fa gis ndax xale bu jigéen bi nangu la xool Bambaali sax. Mm-hmm. nangu koo xool dem na soirée ba mal gré bon gré. Mm-hmm. mais am na lu nekk ci xol Bambaali aussi bi mu ko séenee muy wax ak kii. Euh, euh, euh, ki ko doon interview. Bambaali dafa xoli bëti waaw. maanaam ñu ngi koy ñaan rek sekk maanaam ñu gàttal ko ci lii bu ëllëgee mu bañ koo dal ñu ngi koy ñaan tiddaa nag maanaam boo demee ba mën a jël sa bopp jox ko góor na nga séq ak góor goo xam ne dina nangoo jël ay responsabilité waxuma bàmbaali jigéen bu ne maa ngi leen di ñaan ndax lii metti na am sa doom gisoo ko ko ngénte yow ngay def say fi bopp gisoo ko ko jëndal sax benn couche. Mhm. gisoo ko ko jëndal to toccumikaay nii savon. gisoo ku ko jëndal ay garab ndax xale dina siburu dina génne bëñ yaram bi dina tàng dina wucc coono boobu. Mhm. maanaam bu leen ko dajati. manqué amul paternel. am soxla baayam amu ko. Mhm. amu ko mais nag euh, tant que y a la vie y l'espoir. xam naa ne bàmbaali dina ko rattraper incha allahu rabbi maa ngi lay ñaan bul ñëg bul def dara demal nga récupérer sa doom reconnaître sa doom man sa yaay selbe maa la koy ñaan demal nga récupérer ko man bugguma woon sax lii nii dal la ginnaaw bàmbaali soo ko xoolee danga naan du def dara bàmbaali dafa noppi waxam sax buy wax ay wax yu dëgër lay wax daal ci pare kon maanaam ah ñu ngi leen ñaan rek ngeen baal ma nag dag ma see laaj Sénégal Buzz 221 moo ñëw ba sama kër fekk ma ma toog ki sama jóori yëre di lem ñu ne ma kaay wax ci di di jéggalu bu nekkee dama cee wax dara loo xam ne waruma ko ci wax waaye am naa yaakaan ci dëgg rek man ci laay dox mhm. lu nekkoon sama doom it mu ko defee man ci sama bopp bu ma gisee xale bi ci internet bi rek maanaam damay damay daw yaay bàmbaali daa waroon a daw xoolu sëtam bàyyi mhm. bàmbaali daa waroon a daw xoolu sëtam ndax ñoom dofuñu mhm. ñëpp xam seen deret ñun séeréer suñu deret dañuy xeeñ dañoo xam suñu suñu deret di ñaan yàlla yàlla wis ci ndox bu sedd mm-hmm. bambaale dem reconnaître doomam mm-hmm. ah diggante ma soxna si nag mook teddaa ñoom la rek mm-hmm. ñun xale bee ñu ñor xale bi nga xam ne amagul këyit kenn xamagul nan la sant bàyyam reconnaître gu ko ñu koy ñaan rek su ko nuruwutoon nit man seetlu dama naan nuruwu ko bàmbaali sekk doom ma pend sekk yow mii xale bi nuru na la ci bët nuru na la ba kenn nuru na la na la na la na la na la bopp hmm. benn lañ vraiment nañ ma jéggal nag waaye yaa ma laaj hmm. ma wax ci macha allah waaw jërëjëf. jërëjëf maman mi kàddu yu am solo yoo xamante ne rek mënul woon ñàkk ñu boole ko suñu waxtaan saa su rek actualité bu ñu ko amee wala bu xewee ci réew mi dina ci joxe xalaatam euh, joxe ci li si li nga xamante mooy de point de vue am parce que ci réew mi la dëkk di xalaat comme ni si ku ci ne rek di ci xalaatee ah muy xalaat bu am solo maman ma bàyyi rek nga joxe dernière kàddu yi. waaw waaw di leen wax ne seetkat baa baa ngi nii. si xaritu Cheikh Ahmada Tijane Cheikh Umar Fouti xam naa loolu dinañ ci ñëw émission spéciale ma yore sama kaamil alquran wax leen hmm. maanaam sëriñ yi nga xam ne jox nañ ma loxo sëriñ yi nga xam ne gis nañ ma hmm. gis naa leen ñëw nañ mm, dem déplacé ndax sama jëmm ji hmm. dinaa leen ko wax te lépp dama ciy boote billaahi wallahi watallaahi teg kaamil alquran ah seetkat baa ngi nii choisir ma nag seet waaw lu la wax dëgg yàlla. Mhm. man li ma choisiroon may teg mbana di togg ceebu yàpp bu neex di def samay ceebu jën yu baax. waaw maanaam man loolu laa choisiroon waaye mhm. yàlla moo ma séddee. Mhm. may wax loo xam ne ñëwagut. di leen joxe numéro bi rek 77 744 39 18. 77 737 67 46. incha allah foo ti nekk ci àddina bi noo mëni toll dinaa la wax nii nga toll te du la gis. soxloo ma gis sa foto. dinaa la wax li nekk ci yow te doo wax déedéet. lépp lu ñu lay defal sarax danga koy xoole waaw danga koy danga koy gis mhm. ci kàttanu yàlla maanaam yàlla nag mooy nangu yàlla subhaanahu wa taala mooy nangu lépp lu ñu def rek yal nañ ko yàlla nangul darajay Seydina Mohamed te ma jox leen rendez-vous maa ngi ñëw ak bagage yu garaaw ah. kii puissance sexuelle yi ak yeneen i bagage yi sutura laa koy tuddee tay dégg naa yor nga ci yu doy waar yoo xamante ne sànq euh, yaa ngi may tegal ay vocal yoo xamante ne maa ngi dégg euh, ñu la ciy sant di la ci gërëm ci garab yi wallaahi garab yaa ngi ñëw ah, loolu moom man maa koy kii moom waaw dama bëgg dama bëgg a nga xam ne damay teg ci taabal ji lépp ne leen bii lii la bii nangam la même xale jigéen yi nga xam ne dañoo tuuti bëgg am yaram incha allahu rabbi mhm. nañ ma xaar nañ la xaar ci kàttanu yàlla macha allah loolu ruyu selbe rek lay tudd jeex na waaw ruyu selbe rek ruyu selbe nañu ko xaar fii incha allahu rabbi bu ñëwee Sénégal Buzz 221 indi leen ko ni rek la ñuy àndee ak moom suñu mama mama national mama adduna bi nga xamante ne ñëpp ko bëgg def ko seen bopp mhm. ndax it cofeel gi nga xamante ne am nañ ko ci moom ñu koy ñaanal bu baax suñu borom defal ko jàmm mhm. bokk di kontaan bu baax a baax ci beneen numéro jërë ngeen